asalaamaaleykum wa rahmatullah yéen waaye famille Kër bakka man Matar Touré maa leen di nuyu kenn ku ci nekk sa tur ak sa sant sama audio bii nag bëgg naa képp ku ci jot waaw nga jàllale ko ci groupe bu mën a dox euh, ci mbiru weer wi nag ci laay wax euh, sama xam-xam nag moom bëriwut waaye ci mbiru weer ci laay wax weer wi buñ ne feeñ na ñu ne fu mu feeñee ñu ne Saalum ñu ne wérut bu feeñ bu weer feeñee ñu ne fu mu feeñee ñu ne Ndar ñu ne wérut buñ ne fu mu feeñee ñu ne Dakar ñu ne wérut buñ ne fu mu feeñee ñu ne Kédougou ñu ne wérut buñ ne bu mu fe feeñ ñu ne fu mu ñu ne Casamance ñu ne wérut ñu ne feeñ ne ñu ne fu mu feeñee ñu ne Tambacounda ñu ne wérut ñu ne Kaffrine ñu ne wérut buñ ne weer yi feeñ ne ñu ñu ne fu mu feeñee ñu ne Medina Baye ñu ne wér na ñu ne fu mu feeñee ñu ne Touba ñu ne wér na ñu ne fu mu feeñee ñu ne Touba ñu ne wér na mais kon ñun suñ jumaa yi ak suñ jàkkee kon ñun ban njëriñ la am suñu suñ jumaa yeeg suñ jàkk yi ak ñun suñ daara yi ñu sampo kanaa ñun alquran ji ñu jàng ak ba ñu jàng màkk du benn kanaa ñun bu ñuy julli tusubaar ñun ak ak ak yi nga xam ne moom la mbiri na bàyyi da julli ak yu Tuubaa da julli yu Tiwaawan da julli kanaa benn tàkkusaan yi benn réew mi duñ bàyyi seen caaxaan yi mu mel ne ñun suñ daara yi xam benn fulla ah mais nit ñi dëgg-dëgg nit ñi ñàkk nañ bopp weer daal mën ta feeñ mukk yi nga xam ne ñooy dëkk village yi nekk ci àll bi wala yoo sori yi ñu ne weeri feeñ na ba pare nit ñi da ko dëggal duñ ko dëggal mu ko ba ilaa yomi diini yëfi caaxaan yooyu duñ ko bàyyi ah tusubaar ba ñuy julli Touba ba ñuy julli Medina bàyyi ba ñuy julli Tiwaawan ba ñuy julli Yoof yëpp ñooyam ñeenti rakk ngay def ñaar rakk yoo njëkkee Fatiha ak saar ngay jàng nañ waxante dëgg yow mujjee Fatiha kese nga jàng boo demee Màkka loolu foo a dem ci àdduna bi loolu la ñuy jullee yaa ngi dégg mais daal bu weer yi feeñ na buñ ne feeñ na Sénégal mu daal di feeñee ci der yeneen région boo xam ne jegewut Medina Baye jegewut Touba jegewut Tivaouane ñu ne du dëgg lu tax lool ñun suñ jàkkee yi baaxut wala wala ñun suñ julli bi normalut wala ñun suñ daara yi baaxut alxuraan ji ñuy jàng wala wala ñun baaxut ah mais dëgg-dëgg politique yi ci réew mi ëpp na réew mi léegi ne yàqu na ndax ndax ndax politique lépp ñu bëgg koo politiquer yow huit heures jotagut ba pare nga naan commission bi nañ ne weer yi feeñul ñi daal di def seeni annonce ci àllarba ji naan wéeru wéeru suba ak jàmm kenn du ko mën a gis lu tax ñu wax baat boobu ndax ñëpp la suñ borom yemale ah lu tax ñu wax wala wala est ce que gox yëpp ñoom ñoom ñoo yem ah est ce que bu yàlla ji xëy Ndakaaru da taw est ce que dafa tax Saalum di taw wala Tambacounda di taw wala Ziguinchor di taw bu neexee suñ borom fépp tawandoor waaye bu ko neexee mu taw fii ci biir Dakar xam gox yoo xam ne du fa taw ah nit ñi ñëw taxaw naan suba ak jàmm kenn du ko mën a gis nañ bàyyi seen caaxaan yi yi hëpp na. caaxaani xëpp na sama audio bi nag li laay war a soli ku ci jot na nga ko jàllale feneen ah yenn yi ëpp na mu mel ni ñun suñ daara amul njëriñ mu mel ni ñun suñ julli mi amul njëriñ weeru daal mënta feeñ mu ko feeñee côté Saalum wala côté Casamance wala côté Tambacounda wala côté daara Jolof ñi ñi ñi mën koo dëggal fu mu feeñee lu dul Medina Baye wala wala tuubaa wala Tivaouane ñu ne du dëgg ñooñ nag buñ xasee bañ ne feeñ na ñu ne feeñ luy lool ah waaye yenn yi ñaaw na waaye ku ci ci audio bi déranger na maa ngi lay jëf